ñu ngi ci Aïdal Kabir fii ci Massalikul Jinaan bàyyi nañ la ak askan waaw euh, sana web euh, sama tele maa ngi ziar mboolem téléspectateurs yi ak seeni téléspectatrices di am mbégte di ñaanal Serigne Moustapha ak magam ju tedd ji ko fii yebal muy Serigne Mountakha wérul ay cëram mu mel ne julli nañ it gi lii nag ñun liñ ci yëg rek mooy euh, li may wax toujours sama mbokki taalibe ñu jàpp ne Serigne Touba moo nu may jàmm ndax boo demee fii gore da ngay gis ñu ne maison des esclaves foofu lañ daan parqué jaam ñi nii nga doon jënd xar démb di ko jënd bërki démb taxaw ci daral di waxaale naan bii mën naa ci deux cent mille bii mën naa ci cent cinquante bii mën naa ci nangam tubaab yi bi ñu ñëwee Afrique noonu nañ def commerce triangulaire moo xewoon ñu wër Afrique gépp jàpp nit ñi jël def ko def ko daral bi Gorée moo nekkoon daral bi bu mu jaam yow nit kenn ko dog mooy sëriñ bi kon yow mi lakk sa ndawal rendi sam xar rakk sa ndawar te bi nga làqee sa doom rey doomu jàmbur war na am war ngaa xam kan moo la may liberté boobu ndax it boo seetloo ni buur yi fi nekkoon les rois à l'époque xeex nañ ko ba tàyyi mais réussir li réussir nag mooy sëriñ bi kon nanu ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fi di ñaan ngeen yàgg fee teew may baalu réew mi paax nag man en personne waaw ma mais ma réew mi ma bëgg man man ku tekki dara bëgg ma waaw dëgg la dëgg la man ku tekki dara di ma def ci sa parce que génn jëm rek laa bëgg muy sëñ Touba kon maa ngi baalu ñëpp àq di baal ñëpp lu ma waay ma sa wax jéggal naa la ci barke Serigne Touba maa ngi ziaraat ñëpp di ñaanal ñëpp